fa tabarakallahu ñu ngi woon ci suratul baqar suratul baqar ñu ngi ci yonenti yàlla yaquubu bi nga xamee ne mu ngi waajeg buyu ji boroomam li mu dénkaane woon dénkoon na njabootam mu woo njabootam yépp ne leen su ma génnee àddina kan ngeen di jaamu ginaaw bi ma dee qaalu ñu daldi ko tontu ñu ne naabudu ñun kat dinañ jaamu ilaahaka wa ilaahi ilaaha abaika ibrahima wa ismaila wa isxaaq ilaahan waaxidan wa nahnu lahu muslimuun ne ginnaaw ba bi nga dee soo génne àddina danañ jaamu ilaaha ak sa borom yow yaqub kooku mooy ilaaha ibrahim abaika moo moom mooy borom abaika say baay ibrahim ibrahim wa ismail yonent yàlla ismail alayhi salatu wasalaam wa ishaq ak yonent yàlla ishaq alayhi salatu wasalaam ilaahan buur la walla ilahan yalla wahidan budi benn te wo nahnu muslimuna way jébbulu lañu lahu ñeel yàlla jooju duñu jaamu keneen moo tax dañu wax ne borom kër bu ne balaa ngay en génn adina wax nga war nga waxtaan ak say njaboot toog loo leen ñoom ñëpp ñu teew nga am ay dénkaane yoo leen dénk sa ginnaaw ndax soo génnee àddina dañu topp dénkaane yi yaqub loolu la def tilka yooyu nag tilka yooyu ummatun wala tilka ñooñu ibrahima ak yaqub wa baynahuma wa euh, ummatun xeet la qad xalaat woo xam ne weyoon na laxaa ñeel na xeet woowu maa kasabat ci lu mu faggu min al amali ci jëf walla kum yéen itam yéen yahud yi maa kasabtum ñeel na leen li ngeen faggu wala tusaluuna duñ leen laaj amma kaanu nekkoon ya nekkoon na di ko jëf wax jooju jeex waqaalu wax nañu ñoom yahud yi kuunu nekk leen xuudan yahud aw nasaara walla nasaraan tahtadu kon ngeen jub su ko defee su ngeen nekkee yahud walla ngeen nekk nasaara ngeen jub waaw yahud almadinati wa nas wa thani nasaara eh, ku nekkul ci yi daal nekkoo ci daal qul waxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal yo wax leen bal li fi nekkay nattabiu dinañ topp millata ibrahim diine ibrahim xanifan aji jàng la bàyyi fi diine yépp jëm ci diine boo xam ne diine wu jub te wa maa kaana nekkul woon moom ibrahima min al mushrikiina bokk ci way bokkaale yi wuulu wax nañu wuulu wax leen lil muuminiin ñeel jullit yi aaman naa gëm nañu billaa ci yàlla wa ma ak lépp loo xam ne unzila wàccee nañ ko ilayna ci ñun mooy alquran wa ma ak li nga xam ne unzila wàccee nañ ko ila ibrahima jëm ci ibrahim wa ismaila yonent yàlla ismail wa ishaaq ak yonent yàlla ishaaq wa yaqub yonent yàlla yaqub wal asbaat ak asbaat asbaat moom mooy awlaadu yaqub doomam yooyu fukki doom yi ak ñaar su ngeen demee ci suuratu yusuf da ngeen xam wax ji wa maa uuti ak lépp loo xam ne joxeef na ko muusa mina tawreet ci tawreet wa isa ak loo xam ne joxoon nañ ko isa minal injil ci linjil loo yépp gëm nañ ko moo tax ñun dañoo gëm <clears throat> jullit bala nga nekk jullit dangay gëm yonent yépp nga gëm téere yépp amoo droit weddi benn yonent ñoom nag dañu weddee yahud yi dañu weddi yonent yépp gëm yonent yàlla Muusa ñu ne ñeneen ñi duñu duñu dara nasaara yi dañu gëm yonent yàlla Isa ñu ne ñi ci des ñu duñ dara ñun nag dañu gëm ñépp doonte nag suñu yonent moom mooy seen chef mooy seen supérieur moom dafa bokk ci yàlla yónni ñu nekk ulul azmi dëkk nabiyun mursalun bokk ci ulul asmi nekk seen chef ñépp moo leen gën a tedd waaye nag terewul nag yonent yàlla isa ak muusa ak yeneen yonent yàlla nuux ak yeneen yonent yépp lislaam def ñu sant ñu gëm leen ñoom ñépp soo leen weddee kenn rek yéeféer nga ñun de laa nu farriq wama uuti ak lépp loo xam ne joxoon nañ ko annabiyuuna yonent yi jiitu woon min rabbihim tukkee ci seen borom minal bi ci ay téere wal aayaati ak aaye laa nu farriqu ñun sañuñu ñu teqale séparé na ahdin diggante kenn minhum ci ñoom fa nu nuuminu bi baadin wa nakfuru bi baadin ñun gëm ñi weddi ñee loolu ñun sañu ko sañuñu ko kal yahud wa nasaara ni ko nasaara yi defee ak yahud yi ñun sañuñu ko wa nahnu ñun ñun jullit yi muslimuuna way jëbbalu lañu lahu ñeel yàlla fa in aaminu fa in aamanu su ngeen gëme yéen yahudi ak nasaara yi bi misli ma amantum su ak nasaara suñu gëmee misla ma amantum ni ngeen jul gëmee yéen jullit yi bihi ci alquran faqad ihtadaw faqad ihtadu ma qad ihtadaw kon jub nañu wa in tawallaw suñu dumooyu ñu wone ginnaaw al iman iman fa innama xamal hum ñoom fi shiqaaqin ñu ngi ci seen wuute ma fa sa yakfikumullahu yàlla moom dina la fegal ci ñoom yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ la munal dara wa huwa moom yàlla assamiu mooy aji dégg li aqwaalihim seeni wax waaye alimu aji xam bi ahwaalihim seeni mbir si mu ne cuubuk yàlla mooy lislaam mooy fitrat hmm? alfitra mooy sibaxatullaahi mooy uh, uh, cuubuk yàlla wa man axsanu min kan moo gën a rafet góob waaw min ci yàlla kenn te wa naxnu ñun aabiduuna way jaamu lañu lahaa ñe lahu ñeel borom bi subhanahu wa taala qaala alyahuudu yahuud yi nee nañu lil muslimiin nahnu ahlul kitaabi aw al awal wa qiblatuna aqdamu wala walam takun al anbiya min al arab walaw kaana muhammadan nabiyan la kaana minna ñu ne ñun suñu téere moo jiitu seen téere suñu qibla suñu qibla moo jiitu seen qibla su fekkente ne yonent bi yàllaa ko yónni mouhammad yàllaa ko yónni kon la kaane minna kon dana bokk ci ñun yahuud yi parce que yahuud yi genn wàll gi yonent yi yenn genn wàll gi ci yahuud yi lañu euh, lañu bokk bul waxal yaa mouhammad sallai sallam nee leen atujaadiluunana ndax da ngeen di weranteeg ñun fillaahi ci tànneef yàlla nabiyan min al arab ndax yónni gi yàlla yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yónniwu ko ci kere génnewu ko ci chrétien yi génnewu ko ci yahud yi ndax loolu da ngeen koy diina diingat wa huwa moom yàlla naa mooy suñu borom wa rabbukum mooy seen boroom yéen dégg nga naa ñeel nañu aamalu amaalu naa suñu jëf yàlla dinañ ko fay wala kum yéen itam ñeel na leen a amaalukum seen jëf yàlla dina ko fay wa nahnu ñun muxlisuuna way sellal lañu suñu diine suñu jaamu lahu ñeel borom bi subhanahu wa taala am wàll taquluuna da ngeen wax inna ibrahim ibrahim wa ismail ak ismail wa ishaaq wa yaqub wal asbaat ak asbaat yi kaanu ñoom ñépp nekkoon nañu huudan ak yahuud aw nasaara wala dañu nekkoon ay chrétien qul waxal yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen a antum ndax yéen a alamu yéen a gën xam amillahu wala yàlla moo xam yàlla moo xam wa man aslam amul ku gën a mën a tooñ mi man ci ka nga xam ne mi min man ci ki nga xam ne katama nëbb na annaas nit ñi shahaadatan seede indahu fa moom min allahi pour tukkeeci yalla wama allahu teddudeti yalla bi gafilin muy saggane amma taamaluuna li ngeen di jëf déedéet dina leen ko fay moom xam na ko dina ko euh, bind dina la ko fay dina leen ko fay tilka yooyu ummatun ay xeet lañu qad xalat wéy na laha ñeel xeet woowu ma kasabat li mu fagg woon ci yiw wala li mu fagg woon ci lu bon yàlla dina leen ko fay walakum ñeel na leen ma kasabtum lepp lo xamne fagul ngeen ko ci jëf ju baax ak jëf ju bon yalla dina len ko fay wala tusaluna defu len laaj amma kanu li ñi nekkon ya'maluna diko jëf sayaqulu sufaha sayaqulu sufaha dañu wax ne sin bi sarfu tan fi sin la bo xamne defay top ci fiil فعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة سين بي دفاي توب فعل مضارع ñu ne siin bii dafa bokk ci mujazaati rasuli sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu mës a wax rek dana am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sa yaquulu sufaha ak lu mu yàgg lu mu yàgg-yàgg sa yaquulu dina waxi xel seet na wax as sufaha way réer yi min annaasi ci yahuud yi wal musrikiina ak bokkaalekat arab yi maa ma maa wallaahum moo maa wallaahum lan moo leen wëlbati an qiblatihim ci seen jubluwaay allati bi nga xam ne kaanu nekk nañ alihaa di ko jublu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee madinatul munawara suy doon julli dafay jublu baytal muqaddas dégg benn bis yonent bi sallallahu alayhi di julli rek euh, jibril ñëw jàpp ci mbàggam yi wëlbiti ko mu mu jublu baytallahil haram yàlla nee ne woon na nag sa yaqulu sufaha ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها والوحل لله نيالنا يال المشرق بينك والمغرب أكسو لب يالا كبند يا حديدنا جبل مم يال من يشاءكم صوب هدايته تنجبمغا إلى صراط جمتيون مستقيم وجب وكذلك نكونون جعلنا لني دف yaa muhammad yaa ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaalnaakum laa leen def yéen xeetu muhammad sallallahu alayhi wa ngeen nekk xeet woo xam ne wasatan wu digg doomu dëng di takkuunu ngi ngeen nekk suhadaa ay seede alal naasi ci ci kaw nit ñi yowmal qiyaamati anna rusulahum ballaxahum ballaxatuhum di ngeen seede yowmal qiyaamati ci xeet yi seen yonent yi de jottali woon nañ leen si li leen yàlla yónni wa yakuunu daal di nag rasulu yonent bi alayhi salaatu wasalaam aleykum ci yéen shahidan mu seed annahu balaxkum moom itam jottali na leen jottali na leen li ko yàlla yónni woon ci yéen wa maa jaal naa defuñu alqiblata jubluwaay alleti bi nga xam ne kunta nekk nga alihaa di ko jublu léegi illa ludul lii na alama ngir ñu xam ngir ñu feeñal man ki nga xam ne yattabiu topp na ar rasula yonent bi aleyhi salaatu wasalaam min man ak ki nga xam ne yanqalibu dellu na ala aqiba yi ci ginnaawam dellu delluwaat dugg ci kéefér waaw am na yoo xam ne su amee lu lënt wala loo xam ne comprendre wuñ ko au lieu ñu xaar walla ñu xaar yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wala ñu laaj ko déedéet dañu ah kii xamul lu muy def tey dafay digle li suba mu mu def leneen lef le contraire fekk nag moom wa maa yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lépp loo xam ne wax na ko day fekk mu jóge ci boroomam amul lenn loo xam ne dafay wax loo xam ne bànneex bànneex bakkanam la moom alayhi salaatu wasalaam am na ñoo xam ne nag suñu ne lii xew na rek ah ñu murtat delluwaat fi ñu jóge woon ci kéeféer gi وإن مخففة من الثقيلة اسمها محصوف أي وإنها وإن كانت نكنة لكبيرة لريلة على الناس تنيني والبتكو بيغا خامني يونس صلى الله صلى الله عليه وسلم والبتكونا جوغي بينكو بيت المقدس بيت المقدس جبلوات كابغا lu diis la ci ñoom illaa lu dul ala lazina ci gaa yi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoom de loolu diisuñ ci ñoom lépp loo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def na ko rek ñoom ci dañuy topp asam wa taa dégg nañ ko topp nañ ko ñooñu amuñu problème wa ma nekkul yàlla li yudia muy muy sànk imaanukum dafa am ñu wax ne kon kay ñun yonent bi alayhi salaatu salaam xanaa perte nañu ñun dañ bi ñu commencé julli ba léegi ñu ngi jublu baytal mukadas léegi nag yàlla wàcce na aay nañu jublu bayta baytullaahil xaram mooy kaaba ga léegi kay jublu gi ñu doon jublu baytal mukadas xanaa lool niil na perte nañ ko yàlla ne wa ma kaana déet yàlla li yurdi ab muy muy sàggane imaanukum seen julli googu ngeen doon jàkkaarloog ka baytal muqaddas inna allah yàlla la raufun aji ñeewantal la binnaasi ci nit ñi waaye raximun aji yërëm la bihim ci ñoo binnaas ci nit ñi xad gis nañu taqalluba wajhaka wajhika fi sama yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégg la mu ngi doon jàkkaarloog baytal muqaddas waaye lu bëggoon la yonent bi sallallahu alayhi lu bëgg mag ku bëgg mag la foofu la juddoo foofu la yaroo foofu la màggee foofu lañ ko yónnee foofu lañ ko génnee mu ñëw madinatul munawwar waaye dëkk bu mu sopp la ndax kaaba ga kaaba gi nga xam ne fekk na ci ay maamam ay maamaat maamam léegi bi mu doo bi muy jublu baytal muqaddas dafa doon baree lu muy téen ci kaw di yàkkamti yàlla indi aay ba digal ko mu mu mu mu jublu baytallahil xaram moo tax yàlla nee na at ci dégg-dégg xat bi xatu xaqiiq la naraa gis nañu ba wëlbati wajaxaka sa xar kanam jubluwaay wajh ak sa xar kanam fi sama ci asmaan ngay séentu ngay xaar ndigal fala léegi nag fala nu walliyan naka dinañ la jubal xiblatan xibla boo xam ne pénku boo xam ne tardaha moom nga bëgg moom nga gërëm léegi nag xam nga nooy def fa walli wajhak fa walli na nga jubal wajhak sa xar kanam fi salaati ci julli sataral masjid al xaraami sataral masjid al xaraami peggu kaaba ga côté kaaba ga na nga fa jublu wa haysuma kuntum fu ngeen nekk yéen ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam fa wallu na yéen itam na ngeen jublu wujuh jubal wujuhakum seen xar kanam yi fi salaati ci julli satarahu pegg ak kaaba ga wa inna allazina gaa yi nga xam ne uutul kitaaba jox nañ leen téere mooy yahuud ak nasaara la yaalamuuna ñoom xam nañu annahu jublu gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam jublu kaaba ga alxaq mooy dégg xamoon nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi yàlla yónni axir zamaan njalbeen nubuwam dafay jàkkaarloog baytal muqaddas waaye dina wëlbati ko mujj gi baytal baytallahi alxaram lay jàkk lay jublu ñom xamoon nañ ko bindoon nañ ko seen téere bokkoon na ci màndarga bi yi ñu xamee nabi yu akhir zaman waaw inna alladhina gaa nga xamne utul kitab jox nañ leen téere muy yahudi ak nasara yi la ya'lamun xam nañu laa yaalamuun wallaay xam nañu annahu jublu gi yonnabi sallallahu alayhi wasallam sallam jublu ilal kaabati jëm ci kaab الحق موي دغ الثابت موي دغ كو خامني غو صح من ربهم توكي سين بوروم لما في كتبهم نده لي نك سي سين تيري من نعت النبي صلى الله عليه وسلم دغ تي كان يونس بي صلى الله عليه وسلم خامون نانيو ها ملوكان يونس بي صلى الله عليه وسلم تي سين تيري لپ لو مو ديف جانغون نانكو خامون نان لي دنا كو ديف عليه الصلاه والسلام wa ma laahu déetu yàlla bi xaafilin muy sàggane bañ a fay amaa ci li nga xam ne yaamaluuna ñu ngi ko jëf ayyuhal muuminoon yéen jullit yi wala in wala in aatayta lazina uutul kitaab bi kulli aayatin yahudi boo leen indiloon bépp aaye fi amril qiblati ci mbirum qibla maa tabiu duñu topp topp takk sa jubluwaay jublu gi nga jublu mag wallahi soo leen yi ne bépp aay pour convaincre leen duñu la topp mukk duñu la topp mukk waaw duñu la topp mukk wa ma ant déet بتابع وما أنت وما أنت ديت يو بتابع يو يتم غي تاب قبلتهم سين جبلو واي موي بيت المقدس وما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم يو دو توب سين قبلة نيوم دون توب سو قبلة وما بعضهم ديت لأن تي bi taabiin muy topp qiblata baadin dëng penkuk euh, ñenn ñi yahudi yi duñu topp nasaara yi nasaara yi duñu topp yahudi ba di tabaat wallaahi soo toppoon yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen bànneex ngir bëgg jubóog ñoom ngir bëgg maslaak ñoom ba tax nga topp seen xibla min baadi ma jaa ak minal ilmi ginnaaw yàlla indil na la xam-xam indil na la wax yu pour nga bàyyi xibla boobu tupp topp xibla biñ la diggal digal innaka yow isan jab boobu jamono la minal xaalimiin da nga bokk ci woy tooñ kon dégg ñu tooñ ginnaaw bi ma la joxee waxyu ma ne leen nga jublu baytal baytallahi alxaram nga bëgg jubook ñoom walla bëgg laamisook ñoom wul bëgg mu daaxana mu daaxana mooy euh, raggante raggante gën ginnaaw waaw dégg nga diwal ma sama ginaaw ma diwal la sama ginaaw te te fekk du dégg waaw ak ak bare léegi ak bare léegi mhm. yàlla moo tax yàlla teel na ci avertir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam falaa tudhinu fa yudhinuun bul bu leen raayal seen gannaaw bul ah? bu leen diwal seen gannaaw ñoom itam ñu giddi la sa gina sa ginnaaw léegi-léegi dangay ngay gis loo xam ne sa mbokk dafay organiser dara yow sax gëmoo ko gëmoo ko waaye dangay dem foo teew foo ngir ah dangay gis mu ci wax sax loo xam ne soo doon wax suñu la laajoon da ne loolu amul muy wootee loo xam ne amul su dee ci diine su dee ci tariqa da ngay xam ne lii amul mu woo leen nag ñi ñëpp ngeen ñëw teewe ko ah ko bañ tee ndax mu daaxan na parce que da bëgg itam yow soo xewle mu ñëw mu daaxan loolu mu daaxan la mu daaxan la waaw ràggal dibal ma sama ginnaaw ma diwal la sa ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag dañ ko ko tere falaa tudhinu uyudhinu waaw falaa tudhinu uyudhinu soo leen diwalee seen ginnaaw rek ñu diwale sa ginnaaw te bu ko def yàlla itam wala tam nun tas taksir wat bul joxe yaakaar ñu jox la lu ëpp xanaa mooy ndawta nga nda nga ndawtale cinq mille yaakaar soo xewlee ñu mu ndawtal la dix mille dafa araam yónni bi sallallahu alayhi wasallam tere nañ ko fala tudhinu fu yudhinuun wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir waaw ak bari ci réew mi nag da ngay gis koo xam ne dafa solu ñëw ci xew boo xam ne xam dangay xam ne kii gëmul ci li mu wax dara te itam bokkul ci ngor bokkul ci euh, luy rafetal diine nga woo ñi ñépp ba ñu ñëw hmm? nga commencé di tag di wax ne sama sëriñ moo gën seen sama sëriñ mo mo mo jangal sen sëriñ sama sëriñ moo gën sen, jàmbaar opus moo ëpp xam-xam dafa am cër ci yàlla ba nga xam ne yéen ñëpp képp kenn hmm? te yow dem waaw soo dajalee nit ñi waxal lislaam xam nga ne ñii li ngay wax gëmuñ ci dara jarul nga leen ko wax dangay bàyyi ba yéen kese ngeen dajee ngeen tag seen ñi ngeen am waaye woo ñeneen ñi ah wane xam nga yoni borom bi subhanahu wa taala neena wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu llah adoon bi xeyri ilmin bu len saga bu len khas yàlla jaamu xar xërëm yi ñi jaamu xërëm su ngeen xasse seen yàlla yi ku ñi xas sa yàlla est-ce yàlla ak seen yàlla benn la ah yaa xaslu sa yàlla bu bàyyi leen bu leen waaye woo nit ñi ba ba ñu ñëw nga maanaam nga leen di doyadal nga leen di tuutal loolu xam bokkul ci xel su dee xam-xam am na waxal xam-xam alquran ak sunna ñépp ci yem mooy universel ñépp ci yem su dee tariixa nag nga bàyyi li ngay tàggee say sëriñ di ngay tàggee say ay téere di ngay tàggee kii bàyyi ba ngeen daje yéen yéen ko bokk yéen ñi ko bokk ngeen ngeen tàggante neen ki waaye ñeneen ñi ñëw ba pare ah, nga su ko defee ñuy toog ci seetaan te toog te nekkuñu fa walla toog ci seen ñu ngi tollu fi loolu baaxul loolu baaxul kon fala tudhinu fa yudhinu يلا كوخ يونت بي صلى الله عليه وسلم كون يومي تم ولا ين تبعت اهواه من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين سولن توبون تي لين نيه با باي لي مالا سانت كون ديغا خامني توغ ديغا خامني توغ mooy allazina gaa yi nga xam ne aataynaahumul kitaab jox naa leen téere mu yahud yi yaarifuunahu xam nañ yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ab na abnaahum ni ñu xamee seen doom yu ñu jur binaatihi ci seen melo melokaanam fi kutubihim ci seen téere abdullahi ibnu salaam nee na laqad araftuhu حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي لمحمد أشد اسكي عبد الله بن سلام دفا وخني موم يهود لوون بن يوني يونت صلى الله عليه وسلم نيو مدينه منوره مو توب تي توبا مو گنا دگ توب ييب من من دي بما گيسه يونت صلى الله عليه وسلم خمنا كو نيما خامي سما دوم يما جور ni ma xamee Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax xamee wu ma ko noonu doom yi ma jur ndax doom yi ñu jur dafay dugg ci doom yi nga jur dafay dugg ci zanniyaat am déet dafay dugg ci zanniyaat xamul lan muy zanniyaat zanniyaat mooy sikki sikki sàkk da nga juddu rek ñu ne diw mooy sa baay du noonu nga ne waaw dégg nga nga d'accord est-ce que moo la moo la jur yow yàlla xam sa baa itam dañ la wax sa dañ dañ dañ wax ne euh, doom ji sa doom la mu d'accord est-ce que moo ko jur du noonu waaye kii Muhammad sallallahu alayhi wasallam avant muy ñëw wax nañu ko nii lay mel nii lay mel nii lay mel nii lay tudd nii lay lekke nii lay naane suy dox nii suy dox lii su ñu jàng ko ci seen téere bi nga ko gisee ni nga ko gisee woon ci seen téere noonu lañ ko gisee ci jaaran loolu moo tax mu ne li ma xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax xamee wu ma noonu sama doom alayhi salatu wasalaam abdullah ibn salaam moo wax loolu waa inna fariqan gis nga kuréel minhum ci ñoom la yaktumuuna dañuy la yaktumuuna la yaktumuuna dañuy nëbb alxaq dëgg melo yonent bi sallallahu alayhi wa su ñuy liir tawreet ba gis ci melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ci teg seen baaraam bañ nga gis ko te waxum ñoom yaalamuuna xam nañu haza allazi anta alayhi alxaqu yow li nga nekk xam nañu li nga nekkee yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxaqu mooy dëgg من ربك توكي سي بروم فلا تكونن كون بول نيك يوم محمد صلى الله عليه وسلم من الممترين تي ني سيكي ساك تي ام سيكي ساك ليغا نيكي خمغ كان مو نجيك گم يونتي صلى الله عليه وسلم سن لاكو لاجي دا غاي واخ ني هم خديجه واكاي يونتي صلى الله عليه وسلم مو نجيك گم بوبام امن الرسول بما انزل اليه من ربي wal muuminuun kullun amana bi gis nga li nga nekkee soo ko gëmulee keneen du la gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo njëkk gëm boppam su dul woon loolu su gëmul woon boppam su amee ay jafe-jafe tuuti mu daal di saalit daal di am sikki sàkk ndax moo yàllaa moo yónni wàlla yónni hmm? waaw nit dafay gëm boppam ngay gëm boppam ci li muy def su fekkee ne mu ngi ci dëgg dégg nag soo ci nekkee mbooloo mi lu mu bari bari bari bari soo nekkee ci dëgg te ñoom ñu nekk ci ay caaxaan saxal ci sa dëgg rek dëgg mooy mujj fenn lu mu bari bari bari bari bari dana ñë dem ba dem dana dem ba tas ñëw fekkaat la ci dégg te soo nekkee ci dégg bu ci rus kenn bu ci ragal kenn ragalal yàlla ragalal yàlla waaw ragalal yàlla so nekkee ci dëgg dëgg ragalal yàlla kon su ko defee euh, ragal yàlla am solo waaw waaye ñépp ci lii la wax te du dëgg yo yow kenn nit ki te nga nekk ci sax ci kon ñu teg ci suñu baaraam di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysiir defal ñu kooru jàmm nangul ñu suñu jaamu yàlla nangul ñu suñu koor ak suñu naafila ak suñu sarax lépp loo xam ne def nañ ko ci lu baax ci weer wi yàlla nañ ko yàlla fulal lépp loo xam ne moy nañ ko ci avant weer wi ak après weer wi yàlla nañ ko yàlla jéggal bi jaay Seydina sallallahu alayhi wa sallam yàlla dindil ñu fi feebar bi nga xam ne mooy corona yàlla yóbbu ko fale ci àll ba ba nit ñi mën a delluwaat ci jàkk yi ak jumaa yi mun ñu mën a delluwaat ci seen activité euh, ñu ngi nuyu ñëpp di leen di leen ziyaara di euh, gàntañ nag ci boroom xam-xam yi ñi xam ne euh, dañ doon jéem rek fa tabaarakallahu آه، القران مو مل آه، اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته